laa ko bëggoon waxee j'avais même dit que dañu war a def une délégation toute la jeunesse tous les agents de la SNHLM ñëw ba sa bureau ak yow ce que vous avez fait mhm. c'est que le travail que vous avez abattu il y a de deux ans ñun teg nañ ci suñu bopp def naa fi dix ans ren deux directeurs ñoo fekk je pense que wax naa la ko sa bureau fi nga indi entreprise bi tey ah man je suis vraiment fier de votre boulot personnellement et je sais que bëri naa ci ay moroom ku ma xam moom xam nga ma man xam nga ma mais man lu ma wax dëgg la ci man lu ma gëm laay wax vous avez décanté des situations extraordinaires fi nga jële kër gi ak fi nga ko yóbbu ñun xam nañu lépp mënta rafet mënta mënta mënta mat yàlla yàlla rek a matal lépp mais vous avez été extraordinaire kontaan nañ ci yow dañuy ñaan nag ñaan rek lañu am li nga fi fekk indi ko fi dolli ko ci yàlla na gën a ñokk yàlla na gën a jëm kanam parce que xam nañ sa yéene aussi nit nag loo ko bañ bañ waxal li mu la defal ak li mu defal kër gi hmm. defaloo ko benn nit vous l'avez fait pour tout le monde mais vous l'avez fait également pour la population sénégalaise parce que affaire bi yemul fii c'est le Sénégal le Lycée HLM c'est le Sénégal en miniature donc man je tenais à vous dire que te li may wax moom la ñëpp di wax ah franchement man du ma tricher ce que vous avez fait ici non grand jàmbaar nga macha allah yàlla na leen yàlla gën a jàppale gën ñoo jubale gën a indi ay xéewal ci kër gi ba li nga fi yéene xam naa ne sa yéene des na je sais vous êtes beaucoup que ça donc ñu ngi lay ñaanal yàlla may la wér googu kattan gi ak doole joo ko mun a àggale ci barke Seydina Mouhamed ah, Aline